ma ci jéggaloo mu baal ci la ngëneel ci la xewal yi yokkoo shahr ramadan ya karim ramadan ya habib ramadan yow bu bu nu toogee kër gi am na mu mel da ngay jëw ci fa solution mais da ngay toog jël sa kanam parce que yóbbu ko da ngay jëw wut solution nag yàlla yaxal de njaxal yàlla yaxal de da ngay jëw wut kër gi nee na tàcc wutal solution waa ki dégg ma yàlla yaxal de voilà ah. man kay mënoo maa bàyyi tey moom dama maa bi dee ko ne moom. waaw xam nga na lay def wool naar téléphone bokku ci état liggéey ci état wool naar téléphone bu lijjanti ñu. xam nga jamono ji nekk li loolu naa ko bu bu dugal ah xam nga lan laa lay waaw man dem ma ci naar de ñoom ñoom ay nit yoo xam ne la buñ lay defal duñ la defal te yàlla tax ndax ndax ñoom dan lay woo seen kër di la defal di la teg ay ay caméra di wax ak yow.

yéen da ngeen a a woon mu ne bu ñëwee ay wax jëm su ngeen xale yi fu ñuy wóoree. wóoru yow yow fi mu lu sutal sa doole yow naa la sa def lu garaaw. sa doole laa dugg rek. wóor naa ma waa ñu mbaxal ba ci mu dem ah kii wér. sa mbaxana bu joll bi ne. boo ma ko waxee nga xam tàmm nga xuru dajee xeex fa. ndox ndox xeex ma ko ndox xeex oh, waaw xam ngeen ma de. waaw dof rek. ma tàccoo rek. xam bi deqi bu ñëwee du fi dugg bu ñëwee du fi dugg. alal ko. eh waay Ba Dama nag. waay kër gi de kër gi maa ko moom de. wér dina waaye dëgg-dëgg a def de li ngay waaj wax moom wax dëgg la dina jàpp ma loolu lañ daa lay wax tey wax xam nga man jàq naa sax balaa ñu fi taal si si Seex Ndigal c'est vrai nga ne ma ko waaye doon Baye Fall dàqul ne waaye wax ji li ma gën ragal nag ni mooy koor koor koor koor ku koy wax ji dul loolu waaw dégg naa ñu ngi sédd la xaalis kii ba xuma der bi la xuma waaye nag teguñu ko si yoon ndax si jigéen ñi rek lañ koy jox ñun góor ñi duñ jox ndax ñun ñoo fi indi jigéen ñi mais yow boo mënta demee am nga sa jabar. man su sa jabar am nga jabar. sama jabar dem na. moo moo moo moo moo sama jabar dem na jar na kay kay waa kii bi rab yi ñëwaat rek waaw waaw waaw waaw. Eh. ah oh, waaw kii ko man la corona. jàmm moo ma indi jàmm ak salaam yow moom corona ba ma la xamee ba léegi yóbbu nga suñuy ndaw yóbbu suñuy paa yow yow moomu loo la ko jàmm waaye yoru lay déglu yoru lay déglu bis ni ki tey waaw waaw dama fee jeexal yow boo jeexal ah damay tàggoo pour dem yow yow booy tàggatoo Sénégal ni mu ree yow tànn sama kër Sénégal ni mu ree waay waay loolu dara def ci rabbi alamina damay dem waaw kay jërëjëf. kon kat jërëjëf. yaa ngi dem. bàyyi nañ la yàlla fa eh, kii. bàyyi nañ ko waaye nag. bu ci teg dara. il faut ma yóbbu yóbbal. loolu la ma ab lan ñi ma yebaloon. waaw ah. ñoom laa yóbbul sëriñ ja muy ñan. allahu akbar ngeen tànn yéen ñaar kan laa ci yóbbu. bu fekkee tey ku goree nga di nga dem. bi dee ak li ma la jëriñ di nga dem xanaa laay gar dina dem. Euh, yow la gis taamul bëgg laa yóbbu sëriñ doxal doxal mu problème gis nga waaw binde xiguruma dem ci yoon yow am nga jabar ami doom te man dama émurit di faju waaw wéraguma eh. kon yaa war a dem boo goree eh. yóbbu ko yóbbu ko yow yow la ah, ay mani oh, nga yóbbu ko waxtaan leen yéen ñaar ah, maa ngi ñëwaat ma ñëwee ma xool kan laa ciy yóbbu di ngeen juboo ay ñoom ngóore ñooñ jël ci risque bi. jooy jooy jooy jooy ndax dangay dee jooy sa bopp jooy sa jaww bala ngaa bop jooy dangay dee a jooy aywa dangay dee dangay dee dee jooy sa bopp dangay dee dangay dee jooy sa bopp dangay dee gis dee ka contact ka commentaire ka corona dangay jooy ah. baq day néew baq day néew. jaay sa bopp jaay. leeral naa ñu nag da ngay dee leeral naa ñu nag. waaw waaye kay yow loo war a dëgg da ngay fen mel ni màdd bu ñu joggi nii. waaye bu ko def day fen. voilà merci mel ni màdd bu ñu joggi waaye sa gémmiñ gi yow comme kopp bu ñu joggi. naka baat la def. wax na dëgg. waaye sama jàmm waay. yëngu ñu dee bu yàgg corona ji nga ci kër gi. yéen yàgg kaye de. ah woo yéen yàgg mu ñëw nii waaw waaw léegi léegi ñu bëgg a dee yéen a nag. yéen a waaw ñun ay néew lañ. waaye li ma leen wax mooy. mooy mooy weer wi gis naa ko. waaw waaw yow ban côté la weer feeñee ban côté. weer bi waaw fii fii maa ngi gis. ok waaw fan benn garaaw xool ma ko dama dama weer bi xool ko mu ngi ne. ma xool ko mooy mooy xool naa ma naa ma muy lagay def nii def nii ma ne ko voilà. weer bi moo lakam googu muy ànd lakam bu ndaw bi wéeru rek wéeru rek fan la wéeru rek kii moo gën a dul kii moo mën a fen. yow wax naa bàyyi ndax buy fen du wér ndax bu dee bu dee fen du wér kii moo mën a fen. waaw léegi sax ginnaaw loolu la. ah ñun waa Popenguine woor nañu ba pare xanaa seen koor yéen. yow yow yow vraiment da ngaa bañ a woor gi yow. yow foog nga gisee xam nga xam nga yéen da ngeen a leew yéen. soo leen wax farata ngeen commencé di leew man maa ko wax da ngeen a leew yéen faa yi leew ngeen. te faa bu eh, ñu. soo dee saaga nga saaga sa nijaay man bu koy boole ci sa saaga yi. boo boole ci sa saaga yi ku jëg mu ñëkk ku ñu koy jóg taxaw rek mu ñu ko. moom bu la sa saaga yi dëggal sa bopp dëggal sa bopp. d'accord ba moom boobu saaga bi. waaye yow yow yéen a amal sax bopp ku ci am fii rek nga jóg fii nii ku fi ku fi ñeme rek te sa la sa la jegal nga jóg xaw soo lay mbéj ngay laaw bi ko koy bañ. ah dëgg la ah kenn jóg ku ku jóg rek kuy jóg di ñaax jógal dëggal sa bopp. Ah! ray na ko ray na ko ray na ko ray na ko man boo demoon ci dee sax boo déw kay boo dugg da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 ñaan mu may la loo ci jëkkaloo mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi yokkoo shahru ramadan ramadan yaa ramadan yaa habib yow a nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tuubal jégalul dalul ci yàlla lu mën ci lu baax ci tay mengoog safaan ba nanga ko baay jotaay bi nag